salaamaaleykum mbokk ñuy topp ci 24actu point com tey ñu ñëwoon fii euh, ci Touba fi nga xam ne fa la ñuy wax mbal nekkee ci euh, marché Ocass fi ñu gën a xam ci mbeddum euh, njóobentaay bi. donc gis nañu ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñi ngi koy jànkonteel muy askan wi nga xam ne rek ñoo dëkkee ci gox bile am na ci ñu bëri ñoo xam ne dèjà ndox mi nangu na seen i kër comme ni ngeen ko xamee ci Touba ak diwaan yi. daanaka lu ëpp juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay kër yoo xam ne ndox mi nangu na ko yi nga xam ne rek jot nañ ko recensé donc mu am ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne rek indil na leen ko rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci gox bile ñoom itam dinañ ci ànd ak ñoom xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel te ndox mi euh, daal leen koy yóbbee te ñu soxla ku leen taxawu bu baax a baax xam naa dinañ ci dikk ànd ceeg ñoom euh, xool leen gis jafe-jafe ñuy jànkonteel ñu ànd ci ak Modou Diouf da ngeen ñu topp rek ñu xool euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ñii nekkee ci Touba Mbal ak euh, wàllu mbënd mi. salaamaaleykum yéen waa 24 TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te leen ziar bu baax baax di rafetlu bu baax ñëw gi ngeen fi ñëw waaw ndox mi de moom ñoo ko gisandoo moom mu bari loolu la def rek xam naa moom bañ juddoo ba léegi maanaam bañ juddoo fi lañ ko fekk. kon daal yàgg na fi quoi yàgg na fi loolu moom. Mhm. waaye li tax moom jafe-jafe bi ñu ci am nag mooy mooy daara ji mu daara doon. Mhm. nga xam ne dong yi dañuy ñëw fii am na ñu féete di jàng am na ñoo xam ne nag moom. dañuy ñëw dañuy ñëw di jàng si waaw looloo looloo tax daal moom mu xaw a metti mhm, mu mel ni jafe-jafe la ngir ngeen contrôler xale yeeg euh, bërëb bi ni waaw ak bërëb bi ni mu mel tooy lool mhm. waaw xam ne moom ci jafe daal li ñuy dund lool dëgg yàlla. Mhm. waaw. ndax ngeen def euh, ba génn fi euh, ndox bi mel na ni ëppoon na lii. ndox mi koy bari lool la def nga xam ne ñun ci 6 di matin ba léegi ñu ngi koy manq xam ne siñ bi dafa mujjoon jënd benn machine pompe boo xam ne nii saa su tawee ba ndox mi bari loolu rek dañ koy pompe dañ koy pompe ba ndox mi yëpp génn waaw moom daal moom daal solution boobu daal la ñu nekkagul moom. Mhm. waaye teewut fii yëpp day tooy. Mhm. ndax dafa mel ni ndox mi day ci suuf si lay génnee. Mhm. waaw moom daal coono boobu daal chaque année même problème bi la. waaw chaque nii lay mel. chaque année nii lay mel waaye daal diggante daaw ak ren moom machine pompe la sëñ bi am boo xam ne nii saa su tawee ba ndox mi bari lool. ndox mi léeg-léeg sax mu bëgg a yëg fii ci kaw territoire bi. xam ne ko ndox mi ak kër gi ni mu yaatoo. nga xam ne yeneen kër yëpp génn nag moom mhm. mais kër gi donc koñ bi kër yu bëri génn nañ ndax ndox ndax ndox mu bëri ma mais li kër gi yaatu moo tax mu mu sax mhm. waaye moom day na waar loolu voilà ndax euh, boobaak léegi am na ay autorité ay kilifa yoo xam ne ñëw nañ fi ngir seet ah déedéet moom boobaak léegi moom kenn mu mosu fee ñëw moom di xool ndax am na luñ ciy def yu mel noonu moom mosuñ mhm. cee gis kenn moom léegi lan ngeen mu mel ni yu mel nii boo amee am na taxawaay boo xam ne euh, war nañ ko cee amee waaw liñ ci loolu de moom li ci sëñ bi daan wax ndax sëñ bi am na tele bi fi mosoon a ñëw bu yàgg-yàgg ba mu ko laajee ndax yéen da ndax bëgg ngeen ko leen dimbali la mu waxoon daal moom laay waxaat rek mu da doon dimbal daal yàlla la koy laaj ndax moom mi fi indi ndox mi moom rek moo ko si mën a jëlee waaw loolu daal laa xam ne moom comme que loolu la waxoon moom it kàddu googu kàddu googu rek laay mën a waxaat. est-ce que euh, yi mënuñ cee wasloo ak tamit ngir génne ndox mi comme ni ngeen koy pompé yéen tamit euh, mu wàññeeku. waaw loolu mën naa nekk waaye day fekk booba ñu bàyyi la xel xam ne kër gii kat daara la te sëñ sëñ Tuubaa moom lu dul daara ñuru ko woon léegi képp koo xam ne ne bàyyi woon nga xel loola dana tax nga ñëw mën a waslu xaq dimbali ñooñu ngir yàlla waaye nag moom moom daara la yor di sëriñ sëriñ Tuubaa comme ñëpp moom it waaye yàlla daal la wekk ndimbal lépp ak ak borom dëkk bi. soxna si tur bi nag. man soxna Anta Gueye laa tudd. Euh, lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel te mbënd mi yóbbee leen. ah jafe-jafe yi moom bari na lool ndax ay ati ati at moom la wax yàlla ndox mi moom sonal nañu lool ndax man moom xam naa ne sama doom jugóor ji nga xam ne mooy Sëñ Fallou bi ma koy laataanaam ba tey ndox maa ngi fi te xam naa ni am naa fi naa yàgg naa fi daal parce que am naa fi ñaar fukki at moom te boobaak léegi ndox mi sonal nañu lool waaw ak xale yi ndax nag ñoo ngi nii dañoo yor ay tuut tànk ay donga lañu yor dëgg yàlla xam nga ne gis nga lii moom yaaci yaa ci teg sa bët sonal nañu lool nag ah kilifa yi de xam naa moom mi ngi nii rek bu fekkee ne daal luñ ci mën daal ñu def ko rek waaw luñ ci mën a saafara daal ñu def waaye ñun daal sox mi daal moom sonal nañu nag suñu sëriñ nag moom bàyyiwut bàyyi bàyyiwut benn yoon ndax dafa jënd machine chaque jour saa yu tawee ba ba sibit ñu daal di màq te teewut buñ manqaatee tamit gis nga ndox bi dafay génn man fi ne nii sama néeg bi ndox bi ci suuf lay génnee waaw. mu parce que quartier bi. quartier bi yëpp la. waaw bari na kër yoo xam ne dee sa waaw ñu nag moom xam nga fii dafa yaatu. loolu moo ñu arrangé te tamit sëñ bi tamit bàyyiwut chaque jour mi ngi sëkk gis nga territoire am def na ci xaalis bu bari daaw fii tamit bi ñuy bëgg a màggal en attendant noonu la def dafa jënd suufam def fi comme ça daal di sotti nit ñi ñëw màggal dem ñibbi buñ ko fekkee chaque jour daal mi ngi defar waaw kër baayam la am na nag yeneen daara mais fii moom kër baayam la loolu moo tax bàyyiwut benn loxoom li man ak li mu mënul yëpp mi ngi koy def ñu ñu fi nekk tamit ñoo ngi sant yàlla di ñaan nag suñ borom yàggal ñu fi yàggal fi suñ sëriñ bi ba lépp ñu ñu weesu ko ci barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf euh, comme ni ñu leen ko waxee rek euh, ba léegi ñu nekk ci Touba Mbal ak jafe-jafe yi nga xam ne askan wi nekkee file ñi ngi koy jànkonteel euh, tey nag ndox mi yóbbee leen ko gis ngeen ñi ñu toogal daanaka digganteeg ndox mi sorewul dara mel ni am na yeneen jafe yoo xam ne mën na ko andi soxna si tur bi nag. soxna Fatou Mbacke. soxna lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne ndox mi andil na leen ko. ndox mi moom sonn lool nag mënuñoo génn dem marché mënuñoo dem fenn booy dem gaar ba da xuus. booy dem marché Ocass da ngay xuus ndox maa ngi nii wax dëgg yàlla bari fi lool ñu ngi nii ñun kay bu ñu amoon ko ñu ci dimbale moom ñu jël wax dëgg yàlla. ndox mi yàgg na fi. yàgg na moom ren sax tane na ndax am nañ moto pompe yoo xam ne xale góor yi ci koñ bi dañuy pompe moom tane na sax ren. Mhm. ndax wax dëgg yàlla bu ma saa taw bu pare daawuñ génn mhm. waaye ren moom tane na moom. ndax ndax na boobaak léegi ñu leen fi nemmeeku xool seen jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel ci ay man di wax dëgg yàlla gisuma kenn daaw nag waa Touba si kanam moom bi màgg gi jub si sëkkoon nañ fi waaw. mel na ni yéen a ngi leen di xaaraat ndax fii ne mel jég na. waaw ñu ngi leen di xaaraat ñu ngi leen di xaaraat tamit ren ji mhm. dëgg yàlla. mel na ni bëri na seen i dëkkandoo yi ngeen dëkkal fi mu toll nii ndox mi génnee na leen. waaw waaw koñ bi ñu bari génn ñu bari génn gis nga ñi fi mu toll ñu ngi sëkk ndax màggal gee tax ñuy sëkk mhm. kër gee daa fees dell ak ndox kër gi noonu mhm. ba ci kër sëñ xam ne gone yi fi la ñuy jàngee ji sax bu ñu dem dañu xuus kër gi fees dell ak ndox mi ngi ci kër mën na juróoma. bari na moom bari na moom waaw ëpp na ko moom bari na ndax kër yi yëpp doon daa fees la moom. kon ci kilifa yi ngir ñu jàppale xanaa ñu dimbale ñu rek ñu dimbale ñu daal su ndox mi daal moom lu ko fi mën a jëlee ba suñ gone yi mën a am wér gi yaram ñun ñi ñu mën a liggéey dimbale suñuy suñuy suñuy sëriñ. wax dëgg yàlla. yi nga xam ne yéen a ngi koy noyyi tamit baaxul ci baaxul baaxut moom. léegi ñu ngi keneen sëñ bi tur bi naka la. man Cheikh lay. voilà lan mooy jafe-jafe fii ci euh, fi nga xam ne mooy. Euh, ah fii ci pour koñ bi daal ndox mi ah non fii moom ndox mi moom yàgg na fi moom presque mën naa wax ne mën na mën na depuis ay vingt ans daal. xam ñun nag dañ cee toog si quoi Mbàkke lañ jóge ñëw fi mais bañ fi ñëwee léegi xam naa ay ça fait six mais fi laa fekk ndox mi moom. encore tamit dem naa fi fële daal dem naa fi commune rurale ba. gis naa maire bi laat ko waxoon naa ko. xam nga mais mais mais mais mais li mu doon wax mooy am amu ci ay moyen daal. Mhm. jéem leen ko sëkk xam nga fi ñu mënuñ ko sëkk. Mhm. chaque année dañuy ñëw natt bu ñu nattee bàyyi bi ñu leen gisaat daaw li ñu ci dimbale mooy waa Touba ci kanam ñoom ñoom ñoo fi ñëwoon. te ñoom presque bi ñoom màggal gi presque ay quatre ay quatre jours la mhm. ñu ñëw kii ñoom ñoo ci dimbale ñoo tax ñu daaw ñu màggal. mais daal fii daal li ma la bëgg a xamal mooy mii moom. depuis bu nawet bi commencé ba léegi moom oto du dem oto du dikk nit ñi nit ñi de ci biir ndox la ñuy jaar. te dafa nekk ci centre ville bi nekk ci digg ville parce que boo taxawee nii yaa ngi yaa ngi jàkkaarloog jumaa ji presque jumaa ji yaa ngi ci marché bi en tout cas daal daal ñi dëkk moom. Mhm. mais nag mel ni zone bi ngeen dëkkee tamit moo nekk zone ndox parce que fii daa a xóot. Hmm? waaw fii boo xaw naa xóot sax mais boo boo xoolee fële comme par exemple fële Guy Siyaar benn lañ dafay defar nañ ko mais fii chaque fois fi nekk nii sa machine bi nga gis ne mhm. ñun waa koñ bi ñoo colisé. ñuy téeméer ak ñaar téeméer ba mat 400000. Mhm. yaa ngi dégg ñu def effort pour ndox mi kii nii mais ñoom chaque fois ñoom jë jëmu ci dara. kon lan ngeen di wax ah, kanam moom lañ am yaakaar fi ñu toll moom lañ am yaakaar waaw mais bu dee communauté rurale bi amuñ ñoom yaakaar moom. Mm-hmm. bu doon ñoom doog ñoom ci ndox lañu fanaan mm-hmm. jërë ngeen jëf ba léegi rek euh, ñi ngi fi euh, ci Touba mbal ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkuwanteel gis ngeen kër bi ñu génnee léegi euh, foofu ñoon ay jafe-jafe dëgg sax parce que ñoom ñoo ngi ci ndox mi vraiment di pomper ndox mi pour mu génn voilà soxna si bi naka la. man Ndeye. Ndeye lan mooy jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel te ndox mi yóbbu. xanaa yooyu bëri rek ak dem marché wiiri ba sonn li ñu jànkuwante daal loolu ci la bokk moom. waaw yàgg na trop yàgg na trop. waaye nag waa Touba ci kanam wax dëgg yàlla am jàmbaar lañ trop jàmbaar lañ wax ngi ciy def lu ñu man moom waaw wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci woo ñu te dañuy ñëw sax na incha allah dañu leen ñëw incha allah waaw ah, déedéet wax dëgg yàlla am gisuma leen fi waaw waaye Touba ci kanam daal même daaw it bi ñu waaj a màggal wax dëgg yàlla defar ko ba macha allah ku ñëw fi sa xol de seedi kuyu te xam naa ren incha allah dinañ ñëwaat daa yeex waaye dinañ egg si. Ah, kon daal ndox mi li muy bari bari ngi am yaakaar. waaw ñu ngi am yaakaar teg lépp rek waa Touba ci kanam rek te incha bu ñëwee fi dinañ kontaan bu neexee yàlla. Euh, jafe-jafe na moom yéeme na trop waaye xam naa sëñ Touba dina saafara lépp gis na lépp dina saafara lépp incha allah. voilà dégg nga ko ñoom ñu ngi ciy euh, woo waa Touba ci kanam soxna Khady ñu ngi ciy woo waa ci kanam ak jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy euh, jànkonteel ci wàllu ndox mi Euh, surtout euh, yoo yi nga xam ne moom moo leen di gën a gën a gën a sonal voilà ñu dem ci suñu maam moom euh, ak jafe-jafe bi nga xam ne ndox mi mi ngi koy jànkonteel voilà maam la. soxna Khady Beye. mu mel ni jafe-jafe metti na lool ak ndox mi boobu ak léegi ngeen koy jànkonteel. waaw ñu ngi koy jànkonteel lool xale yi dem ci marché bi sonn nañ yooyu bari na biir bi sori kër yi bari na ndox lool sonn nañ lool bëgg nañ ko ci jàppale. noo ngi sabablu nag ci yàlla ak sëñ Touba ak Touba ca kanam ak ku leen dimbalee nu jël waaye yoom ñi ciy def seen kem kaal kàttan waaye waaw loolu lan bu tawee fii bu tawee rek ngeen am waaw bu daal na am problème xale yi dem marché sonn na lool wéri bi sonn na ndox mi bari na mag ñi di yi bari na ci ñoom lool te lépp mën naa indi yeneen yeneen jàngoro waaw mën naa indi yeneen jàngoro ci mag ñi waaw jërëjëf kon daal lan ngeen di wax ñu taxaw leen laata màggal bi ndox mi jóge fi mm-hmm. ak wér nu ñaanu wér ak xéewal ndox mi jóge fi daal ak yooyu nu san loolu la ñuy ñaan. soxna Maguette. voilà mën nga dellu si jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel fii ci euh, Mbal. ah mi ngi noonu de metti na trop su tawee duñ mën a génn duñ mën a def dara yooyu tamit sonal nañu trop waaw mënuñoo génn daal mënuñoo dem fenn suñuy dem dañuy wiiri ba sonn te soxna yi tamit bu ñuy dugg noonu lu la ñuy daj si yoon bi bu ñu sañoon daal ñu dimbale ñu daal wax ndox mi sonal nañu trop mm-hmm. xale sonnee dañuy xuus si ndox mi di jàngi ak wóoru daal moom daal bu ñu soñoon ñu dimbale ñu si wax dëgg yàlla. man xadi laa tudd. voilà mooy jafe-jafe bi ngeen di jànkonteel fii ci euh, quartier bi. ah ñun moom sonn nañ torop ndax fi mu toll nii gone yi bu ñuy jàngi dañuy xuus te wóorul daal. Mhm. mooy loolu mag ñi doom bu ñuy dugg dañu sonn bay bëgg a dee. Mhm. da ngay gis ku si daanu nekk nga siy gis. métti mhm. na torop. lan ngeen di wax kii euh, kilifa yi leen di dégg. ah ñun moom bu ñu sañoon ñu jàppale ñu soxla nañ ku ñu jàppale torop defal ñu ay canal ak ay yoon wax dëgg yàlla bëgg nañ ko. loolu ñan ak ñan ngeen ciy woo. ñi ciy woo bare nañ. Mm-hmm. ñu ngi ciy woo waa Touba si kanam jàmbaar lañ mm-hmm. daaw fii ni mu ko def moom wax dëgg yàlla am rafet na te bu ñu sañoon ren ñu defal ñu ko noonu baa ñu defal ñu ko nu ko dàq. ba léegi gis ngeen jafe-jafe nga xam ne euh, moo nekk ci kër gi la ñu ngi waat ci beneen kër lépp rek nekk ci Touba ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu mbënd mi gis ngeen kër gi ni mu euh, xóotee gis ngeen tamit euh, xale yi ñu ngi fii ci moto pompe yi nekk fi ngir jéem a génne ndox bi loolu nag nekk beneen jafe-jafe ñi ngi ak borom kër gi ñu eggee koy laaj sëriñ bi ñu ngi lay ziar tur bi naka la Baara Loum laa tudd. di Baara Loum di jaaykatu jën nekk marché Ocass. dëkk fii ci Touba Mosquée Baara Loum. laa tudd waaw. voilà Baara euh, Loum sëñ bi man 1958 bi sëñ bi sëñ Fallou nat loolu sëñ Cheikh Mbacke dëkk bi man ak sëñ Cheikh Fall Baye Góor ak sëñ Baye Fallou Ndiaye ñu ñu dëkk bi 58 laa fi am goon kër gi maag sama baay ko moomoon sama wajuru góor moo ko moom bi mu génn àdduna ay na raxmatal ne woon bi mu génn àdduna laa fi nekk depuis 58 ak léegi 1958 ak léegi génnuma kër génnuma dëkk bi nawet bu ne jafe-jafe yi laay laay laay laay laay jànkonteel miir bi daaw daaw jéeg dafa daanu ndox mu dugg ci kër gi ba ma abandonné kër gi pendant 15 jours yoo xam ne kenn néew ci kër gi ren itam gis nga ko saa yu tawee dell ma ku ma ci dimbale naa ci doole te ah léegi nag maa ngi sàkku ndimbal ci yow ñi nga xam ne sama borom dimbale yàlla jox leen wërsëg te ñu mën maa dimbale te yàlla jëm sañ waa tax ñu dimbale ma ci ndax man amul ma ko defaree te mënu maa génne man mag sama njaboot ndax la xew ku ne xam na ko foo jëm ñu ne la du du fii te foo dugg lu fa dal ñu ne la yow mbaa lu la fa ñu ne yaa fa demoon yooyu damay bëgg a rey maag sama gone yi sama xel yëpp yëpp a ngi bëgg a dee ndax ay yooyu ndax yooyu léegi nag maa ngi saako eh, ku ma dimbale te yàlla tax ak jëmmi sëñ Tuubaa koo xam ne yàlla mën na maa dimbale te jëmmi sama borom tax ba lii mu fajal ma ko yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ndax sonn naa lool man ci dëkk bi depuis 1957 58 bi sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Mbacke na dëkk bi la ma fekk 1951 laa ne ci dëkk bi 1950 ba léegi génn ma Touba depuis 50 ak musu la fekk ci ndimbal musu dara dara dara benn ndimbal musu la fee fekk. teew lu xew ñu jóg dem bu dee wote ñu dem wote ji bu dee lu xew ñu dem defi ko waaye dara kenn musu la fekk ak ndimbal te di man 50 ak léegi maa ngi ci dëkk bi musuma ko génn dem fenn 50 bi ba seen Cheikh Mbacké dëkk bi lañ bay sama bay kër gi muy kër gu 25 mètres. bi mu génn àdduna la laa jaay la xale yi xaaj sama rakk yi jël bi ma jël xaaj bi mi ngi ni daa feesoon del del del del euh, autour bi demoon na un mètre vingt wala quinze profond autour bi demoon na ba un mètre quinze bi moto pompe moom ak wala sama ne ma ne ko moto bi yóbbu moto bi moom ak depuis deux heures ba ma ba ma jógee ajuma ba ma julli ji ajuma ba maa ngi maa ngi maa ngi pomp jàkk ba ma jógee jàkka ja rek añum afi na añaguma añ bu ñu métti ba longa ne sama sama loxo laalu ba ma jógee ci jàkka ja ba léegi maa ngi man xandoom ñan ngeen di sàkku ndimbal hmm? ku ma mën a dimbal rek yàlla tax bu dee état maa ngi sàkku ne bu dee Touba ca kanam it waa Touba ca kanam dimbal bu dee bàyyi defal yàlla boo xam ne yàlla jox na ko wëtal tam mën naa dimbali ngir yàlla dimbali sëñ Touba it man bëgg naa bañu bañu uh, xeebu ma kenn xeebu ma yéew ma daal loo waaye mën a dimbali te yàlla gën sëñ Tuubaa tax ba ma gën a jafe-jafe yi ba ma mën ko sëkk mbaa mën ko defar mbaa mën a wuti feneen hmm? maa ngi sàkku ndimbal waaw waaw jërëjëf yéen itam maa ngi leen ñaan barke Seexul Xadim seen liggéey bi ngeen liggéey yàlla ko yàlla barkeelal ba ngeen gis seen bopp ba seen i doom di ko def barke Seexul Xadim waaw li ngeen ci bëgg fas ko ci yàlla nañu ko yàlla defal jërëjëf Seexul Xadim